waaw xam nga euh, président Macky Sall dafa wax ni ubbi tey jàng tey ñun nag ñu ne avant même élèves yi dem classe nous joxe tey le 12 xam nga élèves le 14 le 12 nous ñun joxe nañu L'école est yi la ci commune Sangalkam La commune de Sangalkam est la nouvelle configuration de la commune de Sangalkam évidemment ak euh, des yu mel ni Kër Ndiaylo Kounoun Kër Kounoun Galap, les cités yi nga xamni ne ñoo fi nekk Médina Thioub euh, yooyu yëpp dañ leen école ya fa nekk bu ne am nga sa dotation en fourniture scolaire jàppale ko parents d'élèves yi jàppale ko également élèves yi également tamit joxé nañu jouni table banc yo xamni ni euh, dañ koy test ci école yi sans compter fourniture yi ñu joxé manam dal li nga xamni joxé nañ ko mat na 40 millions de francs CFA bo xamni joxé nañ ko fi ci biir commune Sangalkam lool nak euh, li waral moy dañu bëgg éducation bi motax ba Je ñëwé zone village ak dama fa gis abri provisoire yu ma commune muy commune Sangalkam abri provisoire ñu travaux ni, salle de classe ak ben. en yu bare yo élèves ci jang ci tay euh, dans le courant du du mois de euh, novembre nous paraît pour permettre élèves ñu mëna salle de classe liñu bëgg moy élèves yi concentré wu trop table banc yi tamit def nañ ci pour que élèves yi mëna deux à table banc am seen fourniture am ay classes classe yu bax parce que ñun classe yu bees yi tabax du du am ay ay tôle dañ koy dañ koy euh, mu doon dal euh, dañ tabax ci étage donc système bobu lañu jël moom la ñu commencé développer dans la zone ñuy gërëm bu baax président Macky Sall ci li mu fi mu au Sénégal ndax investissement yu am solo la ci def jàppale éducation jàppale jàngalekat yi jàppale élèves yi te comme communes yi ak euh, départements yi muy collectivité territoriale démembrement état la ñoom bu président defee ñoom it dañu war a góorgóorlu en fonction de leurs moyens ñu def ko salubrité d'abord ña fay jàng ñoo ko def man maa ngi fàttaliku bi ñu élèves. élève ñun dañ daan bay suñuy sàll dañuy daan bay suñu classe dañ daan nettoyer suñu classe donc ñi njëkk a toppatoo salubrité mooy élèves yi nañ nañ leen ko inculquer jàngal leen ko professeurs yeeg maîtres yi jàpp ci parents d'élèves yi jàpp ci écoles yi ñoom ñoo ko war a bay état du ñëw di bay école même commune warul ñëw bay école école waa école ba ñoo ko war a toppatoo ñoo ko gën a jege ñoo ko war a bay ratta ko ba mu set def li nga xamante ni moo ci war sécurité tamit ñeneen ci dëkk ba ñoo ko war a assurer commune yi en fonction des possibilités mën nañ jël gardien mais xam ngeen ñu jël gardien ci école bu nekk loolu day xaw a diis mais waa école bi ñoom it nañu ak ña fa dëkk ak quartier ba nañu bàyyi xel école yi def fa sécurité bu mat sëkk pour que njàng mi mën a aw yoon. ENO ministre de l' supérieur xam nga ñoom dañuy def ay études gis nañ ni zone bi mu ngi développé développé boo xam ni étudiants yi fiy jógee bare na di ñëw Dakar. biñu défé sen calcul ñu gis ni eno bi nga xamni ni moom wara défar sangal defar kam la wara nek ñu demandé ñu ñu délibéré ñun délibéré nañu ba paré eno bobu sur 5000 mètres carrés dañu ko tabax dina permettre étudiants yi ñu ñëw di jang fi di utiliser li nga xamanteni ni les systèmes de communication moderne ah les NTIC ak euh, li nga xamanteni ni xam nga Covid bi dafa ñu wan lu bare dafa ñu wan ni man nga tok fi nga tok jang té eno yi ñi ngi def ay résultats yu bax ci baccalauréat ak ci lenen ci enseignement supérieur plutôt donc lolu, mbégte la ñi gëreum gërëm ministre de l'enseignement supérieur nga xamanteni mom moom moo ñu baaxee loolu ci ndigalal président Macky Sall Euh inshallah lolu dinañ ko am y a le lycée moderne aussi qui est en construction nga xam fi inshallah gox bi mi ngi commencé am infrastructure yo xam euh dinañ xale yi ak euh, population yi dañ ci mëna a jariñu ndax ëllëgu Dakar fi la da fay màgg li population yi di màggee fi daf ñu sax jaaxal ñun bis bu jot dañuy gis ay ay nit ñu ñëw di toxu si di toxu fii par exemple ma la joxe exemple commune sangal kam boko xaymaa léegi war na mat presque 70 à 80 000 habitants ni niñ ko reconfigurer bo demee Tivaouane Peulh war na mat cent habitants et cetera donc zone bi mi ngi mag dafa laaj ay infrastructure wante président Macky Sall mi ngi ci jappalé bu baax baax.